néewu ko juróomi doomu senegal yi faatu ci Denver seen néew doon yegg si nag biig xol yi tooyoon lool euh, ci seen mbokk yi Abdourahmane Diallo. bu 10 heures ci guddi tegee ñeent fukki minute ak ñett ci lañ daal di tijji buntu fret aéroport international Blaise Diagne néewu njabootu njool yi daal di yegg si seen njaboot ci leen doon xaar teg ci bët. <laughs> Samba si bokk na ci ñu gunge juróomi néew yooyu jógee Denver Colorado ba Dakar. di yàlla leen yàlla xaral àjjana waaw lii moom dafa metti si ñun ñëpp faa ñu ñuy nekk rek Colorado waa États-Unis yëpp dégg nga adduna yëpp. ñoo am na naqar. njaboot gi nag naqar ak tiis la am li ni mel sax a tax mënoo ñoo wax ci kanamu média yi Aboubacry Diallo député sénégalais la représenté département Amérique Océanie yi. muy mbir mu métti métti boo xam ne euh, franchement ni mu demee ak ñi nga xam ne dañoo demoon pour wuti ak ñi nga xam ne ay soutien de famille la ñu woon tey jii yàlla jël leen. ñu delloo yëpp na ci loxo yàlla waaye nag mbir mu tiis la mu tiis la Sénégal yëpp vraiment gis nañ ko euh, ñoom ñëpp ñu ngi koy seede ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaan yàlla xare leen àjjana. ab lanket tijji nañ ko ci États-Unis ci làkk bi nga xam ni amoon na Denver ba tax juróomi doomu sénégalais daal di ñàkk seeni bàkkan ñoom ñëpp nag bokk ci benn njaboot nguuru Sénégal di xamle ni dossier bi mu ngi ciy teg gëtam Amadou Guèye muy directeur des sénégalais de l'extérieur. boo xoolee tey koor euh, yi. tey gouvernement moo jël prise en charge bi ñoo leen indi ba Sénégal vraiment di wane ni rek le gouvernement du Sénégal est toujours là pour ses compatriotes yi nga xam ne ñoo ngi ci jaspora bi d'ailleurs le consul général du New York rencontré na autorité yu nekk foofu Denver chef police bi maire bi ñoom ñëpp gisee na ak ñoom. juróomi néewu njabooti njool yi nag ñu daal di koy yóbbu hôpital principal ñu war leen jébbal seeni boroom dix heures ci suba bu tegee fanweeri minute ci cimetière yu Yoff.